tey la altine benn fan ci wéru octobre atum 2018 xibaar yi ci Mbour TV asalaamaaleykum wa rahmatullah lu gëna fess ci xibaar yi octobre buñ ko waxé ñu octobre mo di ab campagne pour xam dañ koy jagleel feebar bii di cancer du sein Nous tax nak association bi di ACS2 ñoom nag ñu nek association cancer du sein du Sénégal ñu taxawaloon ci dimanche ci ben marche de sensibilisation. ngir ñaax askan bi ci feebar boobu waaye tamit di woo état du Sénégal ngir mu jàppale leen di ngeen leen am ci biir xibaar yi am dem daal di taxawal seen troisième édition cours de vacances gratuit ren nag ñu joxe lu toll ci fukki junni ak juróom-ñaari jumtukaayu scolaire jumtukaayu njàng. jox ko nag ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ndongo yi di ngeen am ci biir xibaar yi ñi ki nga xam ne mooy président am dem bi di Cheikh Issa Sall ak autorité yi fa teewoon ñu wax nag mbuur campement daal di jeex ñi ki démb nag askan wi fa teewoon ak ñeneen ñu bàyyi ko si yenn gox yi ci biir réew mi ñëwoon neen ngir daal di ànd ak waa mbuur yi feetee loolu nga xam ne ni moom mooy kankurang bi di am ci biir xibaar yi ñenn ci nekk luñ xalaat ci bés boobu nga xamante ni moom nekkoon fin yi li moo nekk xibaar yi mbokk yi ngeen taaxee lu tuuti ñu ñëw ak yéen ci yaatal bi ci Mbour TV

feebar waaye ci biir loolu tamit ñoom ñu ngi doon sàkku ci kii di Marème Faye Sall mu jàppale leen bu baax a baax ci paj mi ndax euh, lii di gratuité euh, feebar bi nag mën a law bu baax a baax ndaxte ñi nga xam ne ni ñoom ñoo loru ci feebar boobu mën a faju te duñ ci am benn problème dañ ciy déglu euh, seen présidente bi moom moo ngi tudd Mame Diarra Gueye Kébé ci micro ci bi combaan ak Omar Diédhiou. bu tuddee doxub yeete si cancer ween parce que dañu gis ne cancer ween dafa sonal jigéen ñi te comme octobre rose dafa nekk weer boo xam ne dañ ko jagleel si àddina bi yëpp dañ ko jagleel feebar bi ñuy wax cancer u ween pour ñu ñu yee ci jigéen ñi jàppale leen si mammographie yi sensibiliser leen def leen ay dépistage tey nag ñu tànn nag tëngéej nag ñëw fii tëngéej def ci suñu troisième édition doxub yeete si cancérubeen pour yee tamit jigéenu tëngee ci gaa euh, ñëwaat ñëwoon nañ fi mais tey dañ fi ñëwaat pour yee leen si li nga xam ne mooy cancérubeen beneen fànn bi tamit ñëpp xam nañu ne dox doxu tagat yaram day faj raw dolli nag si cancer ndax bo amé cancer booy faju da ngay war di dox ndax loolu mo lay jàppale si fièvre. bi ñu wane ne que dox pépp feebar bu am rek doxu tàggat yaram daf siy jàppal daf siy def lu bari. jafe bi mu jànkoonteel nag tey mooy paj mi paj mi payoor bi dafa bëri jigéen ñi amuñu ko fa population yi amuñu ko ndax boo jëlee Sénégal tey ah euh, euh, téeméeri téeméeri nit yoo gis ñaar fukk ñoo si am moyen pour ñoo ci am euh, assurance léegi nag ñu bëgg nag ñu wax nañ ko jooy nañ ko jooyate ko juróomi at a ngi nii si ren ñu di ko jooy mer ren. dañuy gën a jooytu nag dañuy yuuxu sax dootuñu jooy dañuy yuuxu dañuy yuuxu di wax suñu njiit nga xam ne ñun mooy suñu yaakaar ndax moom moo fi président de la république moom la fi yàlla teg mooy excellence monsieur le président euh, Macky sàll ak soxnaam Adja Marème Faye ñu nañ ni ñaan ñu jàppale ñu ñi ngi def def nañu sax gaa da am na am na lu ñu def am na jéego yu bare lu ñu def si euh, feebar bi mais ñun li ñu bëgg mooy gratuité parce que lu ñu def def def def ba tey am na ñoo xam ne mënuñu faju parce que da ngay gis koo xam ne day ñëw tey commencé traitement day dem toog parce que amatu ko te lépp rek loolu la ñuy ñaan nag suñu njiitu réew ñu jàppale ñu jàpp si ndax jigéenu kër jigéen a ko yor te bu jigéen feebaree si kër kër ga yëpp ay taxaw kon nag dañ koy ñaan ñu ngi tàllalaat suñuy loxo di ko ñaan di ka ñaan di ka ñaan nañu si jàppal pour la gratuité pour nga xam ne képp ku feebarati si cancer cancer bu mu mënti doon dootoo fayati euh, sa traitement

éducation dañ ciy déglu président ba di Cheikh Sall na euh, solo nga leen taxawal ngir tax euh, troisième édition cours de vacances Cheikh Sall euh, ñuy jox ji du Cheikh membre mouvement am dem nga wala nga nafa ñi dem nañ participation. wala ñu dem marché ñëw joxe seen participation wala ñu dem si seen liggéey liggéey ba ñëw joxe seen participation étudiants yi denc nañ si seen bourse ñëw joxe seen participation donc loolu mooy esprit bi nga xam ne moom la am dem di demee mooy le don de soi la mutualisation de nos possibilités de nos connaissances de notre expertise au service de Mbour et des Mbourois xale yi tamit ñu ngi leen gërëm bu baax di leen ñaanal nag yàlla na réussir si seen njàng mi yal na ngeen réussir si li ngeen nekk ba ëllëg yéen tamit ngeen mën a dellusiwaat fii mën a def li nga xam ne moom la Omar Youm di def ci département bi moom la Cheikh Issa également di def ci département bi ci biir euh, mouvement am dem boobu la ñuy desandi ki nga xamante ni moom mooy maître Oumar Youm nekk euh, ministre directeur de cabinet du président de la république woon na ci bés boobee moom nag mu ngi daal di rafetlu bu baax lii di waa am dem def ngir jàpp ci njàng bi njàngale mi waaye tamit di euh, taxawu parents d'élèves yi ci wàllum fourniture scolaire dañuy déglu maître Oumar Youm ci manifestation boobee ba tey. jàppale mënul weesu lii école bi ubbi. balaa muy ubbi nga waajal xale yi defal leen lën dugal leen ut ay enseignant jël corps enseignant bi ñu encadré xale yi 7000 élèves wax dëgg yàlla loolu ku ko rafet loolu mooy xamoo li dëkk di doxe xamoo lan mooy avenir u nation xamoo aussi li président Macky Sall bëgg ci éducation te damay faral di wax ne bari na ay politiciens yu doon am fii ci Mbour mais xeetu politique bi politique de développement politique citoyenne engagement patriotique loolu rafle woon nañ ko te lii nag yow say tànk ak say wax bari na ci parce que du éducation rek yaa ngi ci sport bi yaa ngi ci social yaa ngi jàppale xale yi yaa ngi jàppale mag ñi yaa ngi ci paj mi ak ay consultation médicale loolu ngay def yëpp teg nañ ci suñu bët gis nañu ko te président Macky Sall xam na ko ñu ngi la si ñaanal yàlla yàlla kàttanal la bu baax jël ay xale ñuy waaj ubbi nga defal leen teraanga yu mel nii soulager nga seen famille soulager nga seen papa soulager nga seen yaay parce que lii bu weer bi di ubbi ñëpp masse mag ñi ñëw doole seen xel si lii lay nekk fu ñuy jëlee ay fourniture scolaire ak ay sac ak ay équipement yi ñuy jàppale seen njaboot boo ñëwee taxaw fi def fi 7000 élèves defal leen lii wax dëgg yàlla gàcc nga la ngeen xam ne nag madame Aminata Touré lañ daal di euh, jagleloon bés boobee moom euh, madame Aminata Touré bu mu ñëwee tamit nee na euh, lépp loo xam ne nii mouvement AMDE mu ngi koy def dina ci taxaw ngir accompagner ko waaye tamit ngir lu jëm ci promotion wàllum njàng meek njàngale mi ñoom dina ci dox seen tànk ba mu mat sëkk mu ngi encouragé nag kii di Cheikh Issa Sall ñu déglu Aminata Touré ci micro Jibi Combaan ak Oumar Diédhiou. lii ngay def bi ñuy yëg escalier yi maa la koy wax.

kon yaangi sur l'excellente voie parce que dañu bokk ni nu gissé politique me féliciter la aussi ci sa ouverture ndax gisna spot bi nga xamné lancé nga ko pendant des jours nga wo ci sa mak ñep responsable yep du département Quel manque wul à commencer par sa monsieur le ministre directeur de cabinet du président de la république muy Oumar Youm ak député yi président conseil Départemental, nous ñoom kenn manqué wul di saluer aussi démarche Bob, wax na le grand succès de l'événement. événement aw ma ci woon doute ndax dama dox ba yem ci sa manifestation. kon ñu ngi lay féliciter di ñaan yàlla ñu ñëwaat fi fekkaat la fi ici à Mbour euh, soriwul édition bi nga xam ne mooy sa troisième édition ñu toogaat fii ñu toog bay fêter la 20e, la 25e, la 30e édition. incha allah te kenn bañ a manqué. jërëjëf Mbour la ñuy daal di wax nag lu jëm ci wàllum Kankourang ñi ki la doon jeex ginnaaw weeru septembre bi yëpp dañ ciy faral di nemmeeku ay activité Kankourang ni ki ci dimanche ji nag lañ ko doon jeex na daal euh, mu nekk nag bés boo xam ne nii fépp fu waay jugee ci réew mi rek. Euh, mu nekk nag bés boo xamante ni da ngay gis ay nit yu bari jóge ko fépp ñëw nag seetaan ci Camcourant bi loolu nag nekk xew-xew boo xamante ni xumboon na lool waaye tamit bari woon na culture dañuy déglu askan wi ñëwoon seetaan ci fin wu Camcourant bi. nga dundee Camcourant. neex kontaan bégee. Ah. loolu de ko dundee. waaw waaw te bëgguma sax mu jeex. muy jaar gis ko soog a daw. <laughs> grand jaajëf. nice ça yi neex na de. Camcourant yi waaw neex na de neex na trop. xamante nañ bu baax. Eh, mais kon yow da ngay ñëw toog ci fii di kii. waaw waaw gis nga neex na trop. Ah. waaye ñu koy fekke sa kat rek. ñu ngi koy dund ah parce que tamit lii la ñu am septembre moom xam nga day ñëw ñu bokk ñëpp Thiès Tivaouane Kaolack ñëppay ñëw quoi parce que cosaan la waaw lii la am quoi tamit bokk na suñu cosaan tamit quoi. waaw xam mais affaire bi sax na de. non <laughs> foog mu demee nii. di dóor jaar ah. foog mu demee nii non man moom dama leen di xajal moom. naka ngay dundee festivité bi gars yi ni ñuy dawee yooyu. sonn nañ moom soo ba tey ñu seetaan wala ma sax kankurang bi moom neex na macha allah et eh, biñ toll ni moom suñu xool yi dafa dañoo kontaan suñu xool yaa ngi mel ni wanagu mbott buñ ko dolli waatoon sax mu gën fee neex yaa ma gën a xam est que bëgg nga mu jeex hmm? bëgg nga mu jeex non bëgg naa mu jeex bëgg ma jeex parce que élèves dañoo war a continuer seen jàng te bu continuer nii jàng bi dafay xaw a tardé mais nag demaat ñëwaat daal du ko. mu nga wokk ñëw ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñëwoon na doon seetaan ci campement bi ñuy jox ñoom nag askan wi rendez-vous ba déwén incha allah li leen leen loon ci wàllum xibaar fii ci seen télévision mbour tv point net wooy leen di suivre information yi ci www point mbour tv point net te tamit di ànd ak suñuy programme ñu ngi leen di jox ba ëllëg incha allah.